lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko lislaamaa ngi jooy jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko ni yàllay sabuur doo sàkku ngaramam yooneen sa soppe alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillahi salallahu alayhi wa sallam wa baad asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu nu ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di julli si yonent bi salallahu alayhi wa sallam gannaaw loolu ñu ngi leen di nuyoo ci nuyum lislaam di leen wax lii di jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla na nekk seen te nekk si ñun ñu dellusiwaat beneen yoon fii ci Mouslih TV ci seen émission bu am solo bii mooy madrasatu rasul ngeen di ci àndal seen mbokk Omar Sow mbokk yi tomb waxtaan bu ñuy waxtaanee tey mooy responsabilité njiit ki nga xamante ne dafa jiite nit ñi nu mu war a mel nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala jàngale na ci alquran ay yu bari di wax ci njiit waaye noonu la tamit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jàngale ay hadis yu bari di wax njiit ci boppam nan la war a mel loolu moo tax jële nañ ci hadis boo xamante ne abi zarrin radiyallahu anhu moo ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne yonent bi man daal dama bëggoon nga daal di ma fal dara dama bëggoon masalan nga daal di ma jiital ci dara abu zarrin mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jël loxoom teg ko sama mbagg mu ne ma yaa aba zarrin innaka daif wa innaha amaanatun wa innaha yowma alqiyaama hasra wa nadaama mu ne yow Aba Zarrin li ngay laaj ci di gis naa ne yow ku lottu nga ku néew kàttan nga ci li ngay laaj masalan li ngay laaj manoo ko te li ngay laaj amaana kóllëre la ëllëg yow mal kiyaam dañ la koy laaj te mu ne pertement la li ngay laaj te ëllëg yow mal kiyaam tamit dañ koy rëccu mu ne lu dul ki nga xamante ne dafa jiite woon nit ñi jox leen seen àq yi ñu yelloo mu war a taxawee ci maandute comme borom bi subhaanahu wa taala nu mu ko santaane kooku rekk moo ci bokkut hadis boobu imaam muslim moo ko génnee kon xadis bi dinañ ci mën a jàngee yonent bi sallallahu alayhi wa def doon moytuloo nit ñi saxaaba yi li nga xamante ne mooy njiit loolu moo tax Omar ibnul Xataab keroog bañ ko bëgg a jiitalee fal ko mu wuutu Aboubacar Omar dafa bañ mu ne jéggal leen ma te ngeen xool keneen te saxaaba yépp noonu lañ ko defoon soo xoolee Aboubacar tamit noonu la bañ ko bañ ko di jiital dafa bañoon ba ñu forcé ko mu doog a nangu bokk na ci premier discours am moom Aboubacar ba mu toogee mu ne man de jiitu naa leen. waay lastu bi xayrikum gënuma leen jiite naa leen de mais gënuma leen kon yow mi nga xamante ne tamit dingaa jiite askan bi jiite réew bul jàpp ne nit ñi ñëpp yaa leen gën bul jàpp ne nit ñi yaa leen gën melal ni Aboubacar ba mu waxee jiite naa leen waaye gënuma leen su ngeen ma gisee ci dëgg na ngeen ma dimbale ba dëgg boobu jëm ci kanam su ngeen ma gisee ma bàyyi dëgg na ngeen ma jubbanti waaye kenn ci yéen bu ma topp ci loo xamante ne nekkul dëgg kon jiit yi yépp dañu war a roy ci saxaaba yi ngir ñu mën a am maandute ngir ñu mën a dolli ragal yàlla ak ngëm yàlla waaye ñu am yërmande ci ñi nga xamante ne dañ leen di jiita tamit ñu mel ne Aboubacar kon ala kulli haalin lu am solo la waaye suñu xoolee suñu jamono bi tey ku jiitu rekk ñu ne moom masalan yaayam dafa liggéey yaayam moo ko liggéey liggéeyu ndeyam la mais ala kulli ñi ko fal nag ñi ko fal nag kon dangay ngay jàpp ne yow mi nga xamante ne dañ laa jiital yow yaay jaamu nit ñi yow yaay seen jaam waaye nekkoo seen buur dangaa nekk seen jaam parce que dañ laa jiital ngir nga war a taxaw ci seeni mbir ñu dénk la seeni alal jël lépp daldi la ko dénk waaye teg la ci ay conditions yu baax tamit nag teg la ci ay conditions yu baax te loolu yépp jógewut sa poos jógewut si sa liggéey mu ngi jóge ci alalu réew mi nga xamante ne ñépp a ko bokk kon war nga taxaw ci mandute war nga mën a jiite ci ragal yàlla war nga mën a jiite tamit ci yërmaande nga xam ne lii de ab responsabilité la te ëllëg yow qiyaam borom bi subaana wa taala dina la ko laaj kon ala kulli loolu nañ ko bàyyi xel dina la Omar ibnul Xataab ba bañ ko forcé ba mu jiite ku mu woo rek kaay dimbali ma ma fal la nangam dëgg doon gis saxaaba yi ñu ne Omar man moom bàyyi ma rek ma toog nii man bëgguma jiite dara Omar mu ne leen yéen kon dangeen ma maa puus ba ma jiite leen ma nekk seen kanam ma leen di woo kaay leen dimbali ma ku ne di ragal di dellu gannaaw kon ma ni damay dellu gannaaw kon ala kulli haalin ba ñooñu doog a ñëw nag kon ñoom dañu ragaloon responsabilité jiite askan bi ndaxte yonent bi sallallahu alayhi nee na amul kenn kuy ñëw yowmal kiyaam fekk mu jiite woon ñaari nit lu dul dina ko rëccu wala mu jiite woon fukki nit lu dul dina rëccu lu taxoon mu jiite leen loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne Aba Zarrin lii daal masalan nadaamala la ëllëg yowmal qiyaam da ngay lu taxoon nga jiite ay nit sahaaba yi yëpp dañu ragaloon jiit nit ñu baax ñi ñëpp dañu ragaloon jiite waaye suñu jamono bi tey mbokk yi ku nekk rek dafa bëgg a jiite bëgg a jiite bi nga bëgg a jiite jëral na nga nga ŋaññi ay nit jëral na la nga tuumal ay nit jëral na la nga xas ay gor tuumal leen ci loo xamante ne ne ku dégg pour mën a jiite rek pour ñu mën laa wóolu rek fal la kon mbokk na nga ragal yàlla ci loolu nga xam ne loolu responsabilité la ci kanamu borom bi subhaanahu wa yow mi nga xamante ne tamit jiite nga réew jamono ba nga jiitee nga jël ay ministre daal di leen fal ñi lay liggéeyal walla ñu ngi liggéeyal dawla bi mooy réew mi ñoomit nañu ragal yàlla ci luñ leen dënk nañu ragal yàlla ci luñ leen dënk ñu xam ne lii dañ leen ko dënk ñoomit ëllëg yowmal xiyaam dañ leen ko laaj loolu moo tax da gis tey suñu jamono bi ku ñu far rek ñu ne yow yaay fan nañ la ministre rek da ngay gis mbokk yi mbokkam yépp ay jóg di organiser ay sabar di organise ay ndagar wolle di fecc di tëb di dal ñoom ko kon yëggatuñu responsabilité bi nga xamante ne moom lañ leen jox yëgatuñu responsabilité buñ leen jox nga xam ne sahaaba yi kuñ doon fal mu jooy ku mu doon fal nga tiit yow suñ la falee nag jël ay milliards daal di la jox nga commencé di organiser ay sabar di fecc di dal di organiser loo xamante ne jaaduwut kon war nañu xool yow ci li nga jiite mooy lan kon ala kulli yow tamit na nga ragal yàlla ci li nga xamante ne loolu lañ la ji loolu lañ la dénk ku ñu fal dara tamit moo xam ministère bi moo xam lu mu mënta doon ju ne la côté bi yaa ci faree ñu woote la assemblée nationale alal bu bëri ay milliards ñu daal di la jox pour nga mën a liggéey ci liñ la fal nga jël alal boobu tabax ci ay immeuble nga jël alal boobu jënd ci ay oto nga jël alal boobu jox say mbokk jël alal boobu jox ci ku la neex delloo woo ko ci réew mi delloo woo ko ci peuple bi nga xamante ne ñoo bokk réew mi ëllëg yowmal qiyaam dañ la koy laaj kon ala kulli haalin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ne jiite na dara dénk nañ ko dara mu daldi di wor ëllëg yowmal qiyaam dañ koy tàkkal benn drapeau boo xamante ne war lañ ci bind warkat ku la gis mu xam ne yow yaa waroon sa réew yaa waroon sa askan kon li nga xamante ne tamit nee nañ la lii lañ lay fal lii lañ liñ la fal ci nangam lañ lay fay weer bu dee gël la waaye na nga fekk nga doylu ci loolu ndaxte am na ñoo xamante ne sag amuñu ko am ñoo xamante ne li nga am xaaj bi sag suñ ko amoon ñu jël waaye xaaj bi sax mënuñu ko am xaaj bi sax mënuñu ko dajale kon yow war nga mën a doylu war nga mën a maandu war nga mën a ragal yàlla te nga doylu ci lu ñu lay fay nga bañ ciy toqal dara nga bañ ciy jël dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di ñu xamal ne soo jiitee daal ñu dénk la alal nga daal di ci toqal lu tollu ni puso ëllëg yow mal qiyaam puso boobu dañ la koy yenn kon loo jël si alal boobu ëllëg yow mal qiyaam dañ la koy yenn kon loolu tamit war nga ko mën a bàyyi xel nga bañ a wor alal bi nga jaarale ko fu mu mën a jaar fu mu war a jaar fuy jëriñ réew mi fuy jëmale réew mi ci kanam nga bañ koo jëriñoo yow dong loolu ëllëg yowmal xiyaam day nekk wor te borom bi subaana wa dina la ko laaj loolu moo teg ba tey euh, borom bi subaana wa taala di ñu jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu jàngal mu ne kóllëre ak li nga xamante ne mooy jokk mbokk ëllëg dañuy taxaw xaar borom bi xaar ki nga xamante ne mu jiite woon walla xaar jullit bi ci siraat ñu xaar ko kii dina taxaw ci côté ndeyjoor kii taxaw ci côté càmmoñ bu dee ba nga ñëwee matal nga kóllëre ñu daldi la bàyyi nga daldi jàll dugg aljanna bu dee dañ laa dénkoon nag nga daldi wor mataloo kóllëre wala bokkoon ci ñi nga xamante ne dañuy jokk mbokk ëllëg yowmal qiyaam soo ñëwee di jéggi siraat yonent bi sallallahu alayhi mu ne dangay daanu ci biir safara kon ala kulli jamono bi ngay matal luñ la dénk xamal ne sa njëriñ la xamal na sa njëriñ la fii ci àdduna da am xel bu dal soo tëddee mën a nelaw nga xam ne man daal luñ ma dénkoon yépp jaarale naa ko ci yoon def naa ci liñ ma sant teg naa ko ci yoon amul dara li ma ci wuruj amul dara li ma ci jëfandikoo bàyyi ñi nga xamante ne ñoom moom alal bi kon loolu dangay am xel bu dal mais ëllëg yowmal xiyaam tamit mu ngi noonu nga xam ne li nga jiite woon nga tegoon ko ci yoon jàppal ne loolu jaamu yàlla la borom bi subhaana wa taala dina la ci bindal tiyaaba borom bi dina la ci fay ndaxte yaa ngi liggéeyal sa réew teg ko ci yoon ci maandute ci ragal yàlla ëllëg borom bi subhaanahu wa taala dina la ko fay waaye soo waree rek mu ngi noonu baaxut kon njiit daal mbokk yi ci tënk war nga mën a maandu war nga mën a maandu ala war nga mën a maandu suñu waxee war nga mën a maandu na nga maandu ci ñépp nag ci alal bi na nga maandu ci ñépp bul faral ñi bàyyi ñi bul di jox ñi di xaj ñi bul yëkkati ñi di xeex ñi laa wa kalla na nga leen yemale ñoom ñépp nga xam ne réew mi daal kenn moomu ko waaye ñépp ko bokk tamit kon li nga xamante ne dañuy jël alal tamit di ko def ci njàng mi war nañ ci bàyyi xel ki nga xamante ne mooy falu war na ba mën a bàyyi xel jël ci alal bi delloo ko ci njàng lislaam delloo ko tamit ci jàng alquranul karim bañ koo jëmale ci benn côté rek comme dañuy wax ne masalan taalibe yi dañuy taxawaalu tey ci mbedd mi bonne solution la ñu war a am solution bu yàmb la comme état bi nu mu taxawalee ay école français tabax ko ba mu rafet dugal ci ay jàngalekat ñuy dem di jàng ji état bi di fay jàngalekat yi nañu tabak ay daara fu ñuy jàngee alxuraan fu ñuy jàngee diine l'islam nga xam ne ku choisir jàng ji islam dem jàng ji l'islam ñu tegu ci ay conditions yu baax waaye mbir bi tamit nekk du wax rek fekk duñ ci am solution bu dee dañuy ay tabak ay daara tamit nekku ne dañuy tabak ñaari daara ñetti daara rek daal di taxaw waaye nañu taxaw tabak ay daara yoo xamante ne yu bëri la partout ci Sénégal moo kam ci capital bi moo kam ci région yi moo xam ci département yi comme école tubaab bi nu ñu waree réew mi daara yi tamit noonu la état bi war a jël responsabilité am taxaw daara taxawal daara yi toll noonu ku bëgg jàng ji diine jàng ji diine taxawaale bu ñuy wax ci taalibe yi nga xam ne loolu yépp masalan dina jeex du am waaye mbir bi nekkul rek masalan taxaw ci presse bi rek di wax moo xam rajo yi wala télé yi téye leen taalibe yi ci mbedd mi fekk tamit defuñ ci dara loo xamante ne mooy tax nit ñi mën a toog jàng alquran nekk ci ay conditions yoo xamante ne yu baax la ñu xam ne réewu jullit moom jàng alquran mënta ci ñàkk. jàng sa diine mënta ñàkk falaa budda loolu day am ndaxte bés bu ne am ku juddu te nit ki su juddoo du ñu woo professeur bi ci université bi wala ci lycée bi du moom la ñuy woo de ku ñuy wax woo leen sëriñ daara bi woo leen imaam bi mu ñëw moo koy ñaanal moo koy tudd kon ala kulli kon njàng boobu ci réewu jullit état bi daf ko war a favoriser daal di ko yëkkati ci kaw ba mu mën a jëm ci kanam bis bu ne tamit mësala nit dina génne àdduna nit su génnee àdduna tamit ku ñuy woo sëriñ daara bi ku ñuy woo imaam bi ku ñuy woo borom xam-xam bi nga xamante ne jàng na diine lislaam moo koy defar moo koy jullee moo koy ñaanal ñu daal di ko jébbal boromam kon ala kulli haalin loolu en tant que réewu jullit loolu waruñu ko gannaawal waaye dafa war a jiitu sax ci priorité yi tabax ay daara yoo xamante ne dañuy wër Sénégal ñu bëgg a jàng alquran jàng nekk ci ay conditions yu baax borom bi subhaanahu wa taala daal di wàccee bark ci réew mi wàccee jàmm ci réew mi ñu xam ne loolu moo ñuy jëriñ fii ci àdduna loolu moo ñuy jëriñ àllaaxira kon ala ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu daal di ñu defalal saadatu daarayni defaral ñu jàmm àdduna ak jàmm àllaaxira lii moo nekkoon suñu tomb waxtaan bu leen indiloon tey fii ci Mously TV ci seen émission madrasatu rasul gën di ci ànd seen mbokku Omar Sow kàddu yi lu ci jub nag ñu ngi koy sante borom bi subhaanahu wa lu ci dëng ñu ngi leen koy jëggal suñu jubluwaay mooy defar dong di ko jéggal borom bi subhaanahu wa di jaajëfal suñu technicien bu baax bi mooy Abdallah di ko ñaanal borom bi subhaanahu wa taala ci liggéeyam bu am solo bi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim wa akiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko lislaamaa ngi jooy jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko yàllay sa buur doo sàkku nga raamam yoneen sa soppe